Ah. Issa maa ngi lay nuyu Issa. maa nga nekk président bu ANAMIS di association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal 4 mm. avril bi 2023 euh, moom mooy 63 ans euh, feetu indépendance su réewu Sénégal euh, naka nga gisee feetu indépendance bi pour yow ban dayo am am na importance amul importance. Eh, fête nationale donc dañ naan am na dayo ah, fête national moom euh, bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn muy opposition bi euh, di di di état bi képp ku nekk Sénégal sa fête la ah képp bépp Sénégalais sa fête la. au-delà même des politiques. d'accord kon gis nga ni daal euh, feetu indépendance lu am solo la feetu indépendance bu réewu Sénégal. Euh, naka nga gisee euh, opposition bi njiitu réewu Sénégal yónnee leen ay carte d'invitation pour ñu teew ci fête nationale bi pratiquement ñoom ñëpp dañoo décliner lu ni mel yow ban njàngat nga si am. ma xam ni rek ay patriotes damay wax ne ñu ay patriote bi patriote euh, euh, bu sa dëkk di di di di feetu da nga war bokk ci feet bi parce que politique euh, terrain la boo xam ne du ma ci sori sax bon du ma sori sax parce que la politique c'est c'est c'est c'est l'affaire des des de la cité Oui. Hein, c'est l'effet de la cité. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que ni warul euh, leen warul leen ñu boycotté warul woon woon ñu mm-hmm. parce que c'est une fête nationale ñëpp ñu war a teew ah ñëpp ñu war a teew pour fêter au-delà des politiques il y a ce qu'on appelle euh, euh, euh, déggoo bi dafa war a am déggoo bi dafa war a am temps politique am na mais bu ñu fête nationale dañuy respecter fête respecter le, le, euh, la nation, hein, euh, parce que c'est la nation qui fête ensemble. Donc, euh, je pense que euh, loolu la ñu war a def mais waruñu waruñu waruñu waruñu gedd waruñu gedd d'accord euh, Issa ñu bëri euh, dañuy wax ni Sénégal amul indépendance moomul boppam euh, ba léegi euh, France moo koy euh, digal lu muy def yow loolu lor nga si daal di tontu que Sénégal ba léegi moomagul boppam en tant qu'ancien militaire lan nga ñu ci mën a wax. waaw may wax ne rek pour euh, xoolee bi ñu jëlee indépendance ak léegi soixante ak léegi mën naa wax ni yàggul. parce que Senghor dafa ñëw ku def li ñuy wax les lois defar lois yi ni mu demee bàyyi tubaab bi ni mu nekkee woon euh, dëkk bi nekki ko noonu euh, Abdou Diouf bi mu ñëwee dafa renforcer loolu Abdou Diouf bi mu ñëwee dafa renforcer loolu mais Abdoulaye Wade moo ñëw euh, dafa activer def changement yi def changement yi donc ñu dugg profondeur donc Macky bi mu ñëwee silence boobu la nekk mm-hmm. lancé boobu la nekk ba léegi nii mais boo xoolee soixante ak léegi donc mënuñ wax ne war na am changement bu bu bu rëy parce que euh, ñun nous sommes un pays sous-développé donc je pense que euh, loolu moom loolu rek mu war a am l'essentiel mooy que euh, ñu am fulla suñu bopp gis nga arme bi arme bi taxawaayam lu fu arme bi taxawaayam lu fu Mm. alhamdulilah. Mm. Uh, bi ma si nekkee alhamdulilah bi si nekkee ah ñoom ñuy doxal ah ma kontaan si ni ñuy doxalee armée c'est une grande muette mais damay wax ne ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu. jàmbaar lañu. même ñu bëri tamit jàpp nañ si côté koom-koom aussi Sénégal moomul boppam euh, koom-koom bi lu si bëri voilà France moo koy contrôler euh, de même que franc CFA bi euh, lépp lool lan nga si xalaat. waaw damay wax ne rek comme li ma wax léegi rek la donc boo xoolee ñun bu ñu jëlee indépendance yàggul noonu soixante ak léegi donc yàggul noonu donc boo xoolee bu baax di xam ne. Euh, et, et Mandongouni n'est pas décollé au regard des autres pays de l'Afrique, au regard d'autres pays de l'Afrique, parce que nous sommes bien côté en Afrique. Donc, euh, je pense que li war a wax euh, mooy nan la ñuy def bi génn si. et si yoon boobu la président Macky nen nekk président Macky si yoon boobu la nekk mu ngi si jéem ay ay effort parce que boo xoolee côté mbay mi boo xoolee côté géej gi boo xoolee eh, yeneen secteurs yi ñu ñu ngi ñu ngi doxal bu baax a baax a baax ah donc ñu tey ñu jàpp ñu ngi jàpp nañu ngi doxal bu baax a baax a baax ah donc euh, je pense que ne donc loolu ay waxi politique rek la la ñuy wax noonu ay waxi politique la mais si sant yàlla mhm. donc boo xoolee au niveau mondial donc il y a une crise qui est mondiale les, les, les, une crise qui est mondiale. Euh, le temps, le temps ne parvient plus à, à, à souvenir à ces, à ces populations. Donc, euh, je pense que euh, loolu la ñu mën a wax de l'état ñëpp daal ñuy ñuy jàppale seen bopp instant bi ñun aussi ñu ngi jàppale suñu bopp le Sénégal ñu ngi jàppale boppam bu baax baax baax ñu fi siy kontaan bu baax alhamdulilah. en tant que ancien militaire euh, yow naka nga gisee euh, armée sénégalaise taxawaay bi nga xam ne am na ko fii ci réew mi ak bitim réew voilà. waaw dama ciy rafetlu damay rafetlu taxawaay bi ñu taxawee parce que ay jàmbaar dëgg lañu ay jàmbaar dëgg lañu depuis soixante euh, fu guerre am taxaw nañu fa am taxaw nañu fa. donc damañ koy rafetlu bu baax baax baax euh, di di féliciter suñu jàmbaar yi bu baax parce que euh, fu ñu dem dañ leen di ràññee. Mm. dañ leen di ràññee ah, loolu rek doy na doy na doy na mbégte. armée ah, bu ñu respecté daal sur le plan international. l'armée sénégalaise ma ne armée sénégalaise daal dañu ko wekk si sur le plan international. oui c'est ça c'est ça c'est ça. waa ah, c'est ça. alhamdulilah euh, parce que ku ku dem ba ñu ba ba fes sur le plan défense donc euh, euh, dañuy jàpp ne yow élément bu baax nga donc te armée sénégalaise dañu koy waxal dëgg dëgg ku waxal dëgg ku waxal dëgg xam ne ay jàmbar lañu ku waxal dëgg rek. Hmm. xam ni ay jàmbaar lañu. d'accord sant yàlla bu baax ci loolu. léegi ñu ñëw ci euh, militaire invalide yi ancien militaire yi yéen euh, yan jafe-jafe ngeen di jànkoonteel actuellement isaaga yi seen jafe-jafe apparemment bari na lan nga ñu ci mën a wax. waaw mën naa wax ni amoon nañu ay jafe-jafe. mais léegi jafe-jafe yooyu daanaka jeex na sax ba ñu tegal ñu bonus bonus bi mooy. Hmm. dañuy liggéey ñeenti ñeenti yoon. ak le ministère dans un dans une dans une comité ad hoc comité boobu ad hoc waaw ñu ngi si ñoo si nekkoon ak waa Rangers mhm. waa Rangers waa ministère des finances waa développement social donc euh, ak euh, euh, problème logement yi donc u loolu la ñu taxawee di doon si liggéey ñeenti yoon séance ba mu am ay conclusion yu abordant yu yu satisfaisant ah, wooy e, e, invés yëpp dañu am ndàmpaay invés yëpp dañu am ndàmpaay hmm. suivant leur catégorie hmm. les grands invalides ak ah, ñi xam ne ñoo des ku si nekk di nga am euh, ndàmpaay lu lu mën naa wax lu doon maa ngi si sant yàlla bu baax alhamdulilah beneen bi mooy que ne wàllu logement yi nañ am incha allah bu neexee si cent mille logements yi nañ si am quatre pour cent oui muy quatre mille logements bu neexee yàlla. ah loolu de lañ jàpp si wàllu couverture sanitaire aussi nañ am incha allah bu neexee yàlla nañ am euh, wàllu transport yi day gratuit bu neexee yàlla euh, beneen bi muy wàllu couverture sanitaire bu neexee yàlla euh, incha allah dans tout le Sénégal nañ am ay pharmacie agréées beneen bi mooy que et gratuité yi donc dina dina wër Sénégal bu neexee yàlla. kon daal état bi mi ngi def jéego yu am solo pour améliorer seen euh, dundin daal su ma la dégg. oui yàgg ko def depuis Ablaye Wade depuis Ablaye Wade lañ commencé parce que euh, li ñu doon fayeku du woon dara mais incha allah biñ si taxawee eh, gis nañ jéego yu si wadd def Ablaye wadd gis nañu aussi jéego yoo xam ne eh, président Macky def na ko bu baax a baax a baax. Hmm. waaw président Macky ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ah di ko sant di ko gërëm bu baax alhamdulilah moom taxaw na si taxawaay bu mat sëkk alhamdulilah. Hmm. ñu ngi si ja remercié ñu koy remercié bu baax. d'accord ñi mu àndal voilà mm. peut-être dernière question Issa Gueye moom mooy rek 4 euh, avril bi est-ce que di ngeen dem défilé ci côté euh, président waaw wala déet militaire invalide yi naka lañ ko nar a féete ci 4 avril waaw man man déjà ak sama équipe jot na convocation invitation mais par rapport ak sama yaram bi sutante du ma mën a dem mhm. maa ngi euh, Euh, mais sama camarade yi camarades yi nañ dem se représenter là-bas. Hmm. mais personnellement j'ai reçu ma carte. donc euh, dinañ ko def daal comme euh, niñ ko doon defee mais bi yoon moom du du duñ dem di ñaxtu je pense bien. non non non non non du am du am ñaxtu moom daanaka mu ngi waajal pour jeexal <laughs> ah mu waajal pour jeexal ñaxtu yi. parce hmm. que boo xoolee ñi doon ñaxtu ñëpp léegi ils se sont rangés. Hmm. ñu ngi sant yàlla ci loolu. ñu santaan la si loolu bu baax voilà Issa Gueye Rewmi mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité. merci maa ngi remercier bu baax Ndeye Comba. voilà may fàttali ni yow yaay njiitu ANAMIS. l' association mmh. nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. merci